cinq cent mille ectare la ñuy aménagé at ci canal boo xam ni dafay jóge vallée du vallée fleuve du Sénégal traverser tout le Dahra le Ferlo la zone Linguère traverser Bawol traverser Kajoor ñëw ba Tivaouane ñu hmm. aménagé de part et d'autre cinq cent mille hectares de ferme agricole environ cinq hectares bu ci nekk hmm. en plus de newoon naa am nañ cent cinquante trois milliards de mètres le programme Fipp feex dafa prévoir trois mille forages à travers le pays au total c'est au total c'est un million d'hectares supplémentaires que nous avons aménagés en ferme de trois mhm. à cinq hectares jox ko jeune jeunes tu sais c'est un c'est un potentiel de combien d'emplois deux millions d'emplois pour les jeunes ça ça peut résorber le le d'emplois des jeunes dans le secteur et des emplois décents. Mhm. xam nga boo bayee boo bayee gerte boo bayee euh, dugub lan ngay lan ngay récolter par hectare entre 3 su baaxee ba baax mu nekk cinq tonnes par hectare. Mhm. xam nga soo bayee ay euh, maraîchage ñaata ngay rek ñaata ngay récolter. entre quinze et vingt cinq tonnes par hectare xam nga bu dee agrumes yi papaye mango orange yi looy récolter quarante tonnes par hectare voilà la différence. Mm-hmm. quarante tonnes par hectare su cinq ectare et di ngay def ñetti saison de récolte ak mu nekk. c'est là où c'est là où l'eau est importante pour l'emploi des pour le développement de notre pays. loo ci def ci alal. Euh, mu delloo la ko delloo la ko delloo la ko au centuple parce que parce que da ngay am ñetti saison de culture at mu nekk mbay bi ci gën a gudd quatre vingt jours. mbayu mbayu mbayu maraîchage bi ci gën a gudd quatre-vingt-dix jours. boo jëlee ni soixante jours mooy ne kon at mu nekk mën ngaa bay ñetti yoon. sur les cinq hectares. bien sûr. Mm-hmm. ça ça fait que un revenu net de combien quinze millions. ok quinze millions par ferme par an. quinze millions par ferme par an ci suuf si. Ah, ah, te foofu nga wax sax man foofu laa bëggoon ñëw. et lui avantage bi c'est on a la sécurité alimentaire. déjà ak fës loolu mooy li jiitu. la question de la souveraineté alimentaire. est une question essentielle. c'est une question essentielle. balaa ñoo balaa ñoo balaa ñoo liggéey. balaa ñoo xalaat wér-gu-yaram balaa ñoo xalaat dara dañuy lekk ba pare mhm. la question de la souveraineté alimentaire dañoo nekk pays boo xam ne mën na koo régler sunu suuf mhm. kon gëm nga bay dundee xam nga euh, may ma terminer rek ci question ceeb bi président Macky Sall daf ñoo prévoiroon l'autosuffisance en riz en 2017 c'était possible et c'était à portée de main et c'était facile barrage de Diama xam nga ñaata ectare euh, lañ ci mën a bay deux cent quarante mille hectares. Mhm. c'est un de deux cent quarante mille hectares. ñun suñu gap c'est présentement ñaata la. xam nga ñaata la fi suñu gap c'est cinquante pour cent cinquante pour cent fi ñu toll. waaw ah, cinquante la koy jéggaane. on produit environ un million un million deux cent mille tonnes de paddy. Mhm. on importe neuf cent quatre-vingt-sept mille tonnes de riz brisé. padi bi boo ko bu boo ci dindee bu boo ci dindee kii. léegi l'échec c'est quoi l'échec de l'échec c'est quoi c'est que le président Macky Sall dafa defut les investissements qu'il faut sur ci euh, dafa deful investissement ci aménagement terre c'est environ un million par hectare hmm. mais c'est un aménagement mais c'est aussi un entretien qu'il faut donc la SAED dafa nekk une société extrêmement stratégique hmm. ci point de vie de la sécurité alimentaire des, des mhm. populations yi ngay dégg ñu koy jox ñee ñee ñee ñee kenn gënu ko yeeyoo sayet kenn gënu ko yee yeeyoo ah, mais il faudrait que sayet def ay résultat tamit parce que bu ñu jox ay ay te gisuñu résultats yi mbaa duñu xam nga tey nous avons un potentiel de deux cent quarante mille hectares xam nga ñaata lañ ciy bay quinze pour cent de cette mm. superficie trente mille mooy mooy ne la bu ñu bayoon tey soixante soixante. te yaa yaa ngi ci boole étranger yi ñëw fii di bay. soixante non li ñu bay Sénégal. lépp li ñu bay Sénégal parce que même étranger boobu bu ñu ko bayee c'est considéré comme une production nationale. ok. bu ñu amoon soixante dix mille quatre mille hectares on a on a l'autosuffisance en riz mu des plus de cent mille cent vingt mille hectares. yoo xam ne ah yoo xam ne maraîchage nga ciy def culture nga ciy def. floriculture nga nga ci def. mais docteur production de plante docteur dagguma la foofu mais il faut que nga leeral ñu. man dama dégg ñu ni ma autosuffisance boobu c'était presque atteint mais dafa fekk ni sénégalais yi dañuy bay jël li ñu bay di ko jaay ay Mali di ko jaay Mauritanie loolu est-ce que dëgg la. no non xam nga li ñuy li ñu bay les statistiques de récolte nous disent que nous avons le maximum de de pic de production c'était un million deux cent mille hectares. Hmm, hmm. un million deux cent mille tonnes Euh, plus on consomme environ. consomme plus. deux millions cinq cent mille tonnes. Mhm. par par Sénégal. Mhm. donc on peut pas parler d'autosuffisance. donc on est à cinquante pour cent cinquante pour cent. si ñoo xam ni tey buñ buñ utiliser woon rek la moitié de ce qui de li nga xam ne am nañ ko dans la vallée du fleuve Sénégal mën nañu am autosuffisance en riz naa nag tey fi ñu toll on a environ soixante soixante dix pour cent yuy jege vallée du Sénégal. mais presque la moitié mi ngi jóge tey sur la Casamance. ak la zone de Tambacounda mooy li ñuy wax le riz de plateau. Cheikh Dieng président de la République du Sénégal qu'est-ce qu'il va faire par rapport a ça. moom laa wax. c'est donc ce canal du Cayor. Mhm. c'est trois mille c'est euh, trois mille forages. un million d'hectares supplémentaires yoo xam moom ngay jox jeunes yi. nga former leen duggal leen dans le secteur de l'agro business déjà c'est une création de de deux millions d'emplois à terme voilà un peu un secteur qui aurait permis que tey sunu trois cent jeunes du ñu dem daanu ci biir géej gi